suñu attaquant la. deux lay dugal tey. mooy ndaanaan mais tur bi tur bi wax ko. non tur bi dañ ko wax parce que dañ ko yóbbu fële. dañ ko yóbbu fële ah. ñu ngi ziar. le moral est bon joueur bu mag la de. waaye ancien international. ah seen seen international yi la de ñëpp gaa yi leen seetaan de waaw waaw. mais dafa mel ni gars yi dañuy lox nii de nu mu demee noonu ah nga ah mais ba loolu loolu mos ah nga Fara. Diaw eh, Fara ah. Fara wax la <laughs> ah, mais Diaw atia. Diaw ndam rek incha allah. Ah. waaw amul leneen. ah kon jeex ñaata la. non du ma wax score mais ndam rek. Ah. waaw waaw ma ñëw saa waay nga ndam rek incha <laughs> allah. incha allah jërëjëf gars ah. le moral bon tey ñaata la. la.

Oi encore, é encore, encore. Oui, merci. Deux balles, deux balles. Une, é elle va encore, dernier ballon. Ouais. salaamaaleykum les internautes Asmoon TV di am mbégte rek ak contentement di ñëwaat ak yéen ci émission Asmoon Sport tay nak ñu ngi ci national 1 vie moy ni ñu koy défé rek chaque jour moy résumé commentaire ak réaction ñu koy def ci diggante avenir de Dakar ak ñaari tali moy match bu am importance ci ñaari équipe yépp parce que avenir gis nañ tay moom moo recevoir ñaari tali ñu koy jouer fi ci stade euh Mbao bi muy nekk fi ci ci ci ci Mbao waaw ñuy nekk fi ci Mbao muy stade bo xamné tay tey jii stade bu bees la machallah allah waaw muy match bo xamné tay tey jii match bu am importance ci ñaari équipe yépp mën nañ wax muy ñaari tali di di avenir de Dakar comme niñ koy défé chaque jour moy résumé réaction ak ay commentaires damay ànd ànd ak rek sama ndaanaan bi rek muy Modou Habib dem rek demal leen defa leen ay réaction yoo xam ne jël nañ ko avant. match waaw di wax rek ni ñu ngi chaque jour rek si Asmoon TV ci émission Asmoon Sport maa ngi le président. des supporters de Niary Tally muy Medoune Diop ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar as ñun ñëpp ñu ngi woote merci Medoune mais Medoune dañu gis mel ni da ngeen am lu leen metti léegi nii parce que maa gis ngeen di wax rek loolu waral loolu. waaw dañu am benn cri parce que dañu ñëw fii stade supporter ñëw déplacé ñëw ba si match bi ñu ne ñu billet à deux mille francs lañ koy jaayee. stade si yoon dañ naan fii deux mille francs fii kii mais billet yi ñëpp nañ national mais bu ñëwee ba fii ñuy joué ak équipe bo xam ne ñaan avenir Dakar ñëw stade ba ci suñu de déplacé bo ñëw fi ñi jaay bi à 2000 francs loolu fédération bi ak ligue Dakar la ñuy interpellé directement loolu ci juk tay tey mënoon nañ ay incident subiti su wa ñu né wa ñaar tali ñoko def wala ñu ñoo ko ñu ay problème te ñëpp xam nañ normal ñu ñuy jaay billet à 2000 francs

comme bien simbi yooyu bind si à 2000 francs rek jox ñu comprends ba pare en plus tam benen affaire moy du mu officier war nañu am 5 laissez passer ñu né duñ ñu ko jox amul officier amul dara duñ leen jox cinq ñëpp ay jënd billet ñëpp a jënd billet à deux mille francs loolu mënoon ni incident parce que fuñ toll nak ñun borom ciak nak du xeexoo borom baat neen moo tax ñu maay président avenue de Dakar muy seigne salou ñu lay ziar di la delloo ziar as Wow, di am mbégte rek tey jii di la talal micro gis nañ équipe bi macha allah mi ngi ci 4e position ak deux matchs de retard suma djumul wa avenir nak kuko gis xamni équipe bu am engagement la avec un président bu ambitieux tay ji nak dañuy ñew avant may ag ci yegsi ci match bi damay ñew parce que dama gis ay ciow yu xawa am touti ci supporter ñaari tali yi ñu wax ni dañoo ñew bo fi ñu ne 2000 francs la billet bi di jar te ñom pour ñom national billet lu mu cher cher 1000 francs lay jar. Euh, ñom ñoo bëgg fixer prix fenn hmm. mais spectacle bi ñi jaay amul prix. donc aujourd'hui il faut que nous dès le football bi li nga xamante la malheureusement euh, du Sénégal tey toll na ci plafond est ni de ci suivre plus. Euh, les frais d'organisation coûtent excessivement cher donc c'est un match où Avenir de Dakar a pris tous les frais d'organisation de son compte il n'y a pas quelqu'un qui l'a accompagné donc il n'y a, pas 10, 15, 30 spectateurs nous on a <laughs> on on a jugé nécessaire de faire le prix à 2000 francs. 2000 francs pour regarder un match de football avenir de Dakar, Niaritali, je pense que c'est raisonnable. D'accord, nous accord ñoo ko déggandoo président bi wax waaw loolu leer na xam naa ni ñun ñëpp dañ ci am benn jàngat léegi dañuy ñëw ci avant le match gis nañ avenir macha allah mi ngi am benn progression tey jii ni mën wax en général l'objectif de avenir de Dakar. maintien Bonjour le maintien on est une toute petite équipe dañuy jàng une toute petite équipe avec des très grands jours que j'ai vus dans votre équipe. mujj. ñaatale ñaatale ak ñaatale. allé gars yi bon match bon match bon match. jatoo fële. Ja, dan nog wel Hij had ook erbij. Ja. You You, Beauty sound. Vamos a ver! waaye nekk nekk ci affaire yi rek.

Moussa Moussa Keita ñu ngi ziar di coach su Avenir de Dakar te ji nii lan nga mën a wax si sa premier mi-temps. bon ma mën a wax euh, fait de jeu lañ ma dugalee ah. te penalty la buñ ñu ci discuter man du ma ñëw ci yooyu du ma entraîneur buy làqat si boo xoolee match bi ñoo ko moom. tout flottement moo des moo def rek mais on a boosté boy, gis nga len ak sen public ñëw équipe bu mag la mais tay équipe bu yeuf équipe bu ndaw lañ def du bëgg di wax ci équipe parce que ñu ngi fi di kaas entré yuxu zone yi yuuxu arbitre def ni ay impact ay li ñu football day am impact am rigueur gis nga demb Sénégal li len dal bo xolé algérien gi football fa la toll impact bi am ñu ngi influencer man du demander demandé ñu rouge jamm mais ils le font mais def nañu ay changement rectificatif incha allah je te donne rendez-vous deuxième mi-temps je sais que dina baax incha allah. waaw Libaas ñu lay ziar gis nañ euh, seen première mi-temps bu baax engagement gis nañ tamit ngeen dominer euh, avenir tey lan nga ma mën a wax ci première mi-temps bi. tout d'abord li ma la mën a wax ci première mi-temps bi mooy comme ni nga ko gisee rek la ko ñun ñëpp gisee quoi donc euh, dañuy essayer bu ñu deuxième mi-temps daal di rey match bi ci deuxième mi-temps bi nekk à l'abri quoi waaw parce que. am nañu njot topp suñu ginnaaw donc faux pas waratuñu waaw suñu match yëpp ay final la gis nga équipe bu ñuy jouer ak ñun moom li ma la waxoon rek ñaari télé c'est l'équipe à battre te ñun aussi tooguñu croiser le bras bàyyi équipe di ñëw suñu kaw waaw li ñuy entraîné nag ci semaine bi yëpp bu ñu ñëwee ci match yi lañ koy répété comme ça loolu mooy faciliter sax suñu match yi quoi parce que entraînement yi coach yi duñu may dara dëgg la dëgg la moo tax parce que li nga wax léegi wax nga ko nekk du leen may dara parce que tey jii est ce que yow du pression ci yow libaas lañ indi pour ñaari tali yéeg ci kaw gis nañ ab euh, euh, nu mu tuddati euh, laay jara laay ay dara gis nañ ko tey jii mu def retour am moom tey jii sax la marqué première buram tey du pression ci yow tey jii nii ngeen ñëw pour yóbbu ñaari tali ci kaw. non non non amuñu pression boobu <laughs> amuñu pression boobu parce que li li ñu joueur footballeur dafa dafa dafa différencier mhm. donc ñun nak ay footballeur lañ donc être footballeur mom ça va tout dire pression beeg lépp da nga koy jël nga tégué ko de côté ba paré diko encaisser mhm. lool mo ñuy permettre sax davantage ñuy avancer ci lu bëree bëri mhm. mais aw ma benn pression ci lool non est-ce amu amul leen xaar ko. waaw dañoo xam fi ñu jëm nak xam li ñuy xaar. motax pression amuñu ko. amuñu dara dañuy waxtaan suñu biir dañuy diisoo. lool moy feeñ sax ba suñu match motax moy muy yomb lu mu metti metti metti dañuy xam. mu nekk 1-0 lan nga ma wax. waaw bon comme lu ñu coach bi wax rek moom lañ appliqué quoi mooy consigne bi jox la def ay erreur moom lañ def si but bi nii dañuy joué côté gauche après mu am changement d'aile ñu dem côté droit Albert gagné duel bi dugg def crochet intérieur waa faucheté ko am penalty quoi waaw tey lan a wax en deuxième temps lan la bi rectifié ak a mën a demee pour conserver seen trois points. waaw non coach comme yàlla def na ni ñu mën nañ premier mi temps 1 bu deuxième mi-temps devons maintenir le même cap rek nous devons bousculer encore comme actuellement nous ñu ñëw avantage si a jouer continuer à haut bi gën pour nous donner deuxième Durant, wow. Durant, wow.

metropolitana. félicitation la lay wax. waaw merci beaucoup mon frère merci jërëjëf. wax ne rek gis nañ sa premier mi-temps ak sa deuxième mi-temps mais gis nañ en deuxième mi-temps avenir tamit ñëw nañ bousculer mais gis nañ fi fekk nañ fi équipe bu nga ma mën a ban jàngat ngay def ci match waaw xam nga dañuy wax rek moo match lañ doon joué mais match bi pratiquement dafa nekk ci ñaari équipe yoo xam ne ay naataangoo leen parce que yàgg nañ ci tase renaissance. depuis bi ñuy njëkkee di créer suñu montée yi daan nañ tase ak ñoom donc ñun ak ñoom saa pratiquement day nek match choc quoi voilà donc ñom xam nañ suñu position fu mu toll ñun dañuy jéem a pour gagner match bi bon pour euh, monter ñom tamit ah peut-être une ambition des dal c'est une ambition li ci ëpp moy dal contre ñaari tali pour ba ñaari tali jàll bàyyi leen fa té ñun tamit victoire lañ soxla donc lool motax match yi d'habitude da fay xawa metti dal voilà. dëgg la parce que gis nañ ko ñaari tali bo xamné mais manam da ngeen nekk benn groupe muy seen staff bi di coach bi gis nañ lépp ba ci directeur technique beeg yooyu yëpp gis nañ ngeen am benn benn cohésion seen biir tey jii nii ci dix match yi ngeen joué nii boo ma ci doon wax lan ngeen ci jàngat lan ngeen nga xam ne tey jii nii manquement wala loo xam ne war ngeen ko améliorer ci équipe bi. waaw bon d'après mu gisee nii mooy euh, équipe bi ni ñu ko waxee rek liggéey nañ ci lu bëri daal parce que suñu hivernal def nañ hivernal bu baax boo xam ne président bi teg nañu ci condition yu baax donc li si des rek mooy supporters yi ñëw. collé si équipe bi parce que pratique commencé nañ ko def parce que d'ailleurs bi ñu commencé yi gagné sentir nañ ne suñu deux trois match yu mujjee yi supporters yi ñu ngi ñëw di poussé équipe bi félicitation nan lay wax merci merci merci H waaw mais gis nañ nga def un gis nañ tey sa match yéen ak avenir xam naa ni yombul te su ko tamit parce que joué avenir tey ban état d'esprit nga joué sa match ba am 1 waaw comme comme comme ñun xam nga ñun dañu am lu ñu sas. mooy yéeg. mooy machine mooy yéeg. moo tax suñu machine benn du yomb machine xam parce que xam nañ ne suñu machine benn du yomb waaw. loolu tey jii comme may wax rek ma wax naa ko sànq laay kii laay laay Aydara waaw mu nekk match équipe boo xam ne tamit ñaar tali fii mu nekk fii bu tey jii nii est-ce xam nga li leen di xaar ak ban ngeen def yi ngeen joué lan ngeen war ngeen ko war a améliorer pour mën a atteindre seen objectif. waaw xam nañ ne ne ñun teel nañ ñu wax ne xam parce que wax teel nañ ñu wax yéen benn match du yomb parce que équipe yi ñuy joué yëpp dañuy xaar mais ñun depuis hivernage dañoo am benn objectif ñun ñëpp mooy fi ñu nekk suñu place mooy yéegal équipe bi fu mooy yéegal équipe bi deuxième division ñun ñëpp objectif boobu la ñu moo tax si loolu la ñuy liggéey chaque tamit an couche yi du ñu may dara yi chaque jour intensité waaw lépp day liggéey bi lépp day métti. moo xam ngeen xam ngeen ban état d'esprit tamit moo yëgal équipe bi est-ce que xam ngeen li leen xaar. waaw xam nañ li ñuy xaar xam nañ fi ñu jëm de. tey jii lan mën a wax ci lan lañ war a wala wala yokk pour équipe bi dem ci kanam tamit. waaw mooy gën a gën gën a yokk liggéey bi. Ah. gën a gën gën a gën a bañ a bàyyeeku. gën a yokk liggéey bi. dëgg parce que instant yi dara xewagul. parce que des na ay match yu bari des na ay match retour pratiquement deuxième bi li ñu ko rayee presque un point la mooy ñu coach euh, Moussa Moussa Keita mes encouragements lay wax tey jii nii lan nga ma mën a wax tey ci match bi. non li ma la mën a wax as waxoon naa la ko première mi-temps. te wax naa ko Samba Keita wax ko Imaam. man mënuma yore li ñuy laaj football Sénégal on le recommande à demande à Aliou ñëpp ñun ñëpp di kaas sénégalais yi foo tool ñu kaas GG football mais équipe buy tullee en deuxième mi-temps garaawul seen stratégie la mais ma contrer leen changé def 4-4-2 losange mais dañu tëdd laay ay dara ak ni mu mel dafa tëdd presque dix fois ci terrain ñu tëdd tëdd tëdd joué ñu sax vingt minutes wax naa ko DTM football Sénégal lii honoré ko dañu war a di football di attaque dem naa ba ne ko tey ta sant ma sant kay jugal nga ma maa ngi lay attaqué mais mën nañu frankulaay d'accord mais ñuy def ay déplacement latéral ñu nekk lu leen neex yàqante ba mais tëdd ay vingt minutes arbitre yi sept minutes lañ ci yow mais dugal naa bii du ma wax ci vidéo yéen fi dugal naa bii mu leer ñu bañ jox leen penalty cadeau la ma doon bañ du ma ci yooyu du ma ci aventuré mais je te donne rendez-vous ni ma la ko joxee woon ci deuxième mi bi nga gis je te donne à la fin di gis ci kaw incha allah te gis naa mesuré naa leen dañ nañ délaché physiquement bàyyi lépp impact ba pare li gën a jaaxal équipe nan ngay gagné ñu félicité la ngay xeex kon kay ñoom am na fu ñu souffrir nañu mais nag dañ war a bàyyi xeex parce que mënoo xeex boo waat ci troisième division boo xeexee quatrième ak public bi ñu amoon équipe bu ñu ma naw la parce que mon ami et frère laay ñoom démboo samay pourama yow xam nga li may wax équipe bu ma naw la mais man du may bu dul génn vestiaire te wax naa leen ko du ma ragal zone 3 la joué ñoom donc bi ma aaloo melu ma nii mais ñoom ñëpp pousse nañ te je les défie jour seen koñ laay aw waaw ragalu ma ci waaw di wax rek euh, mbégte la rek ak contentement ma leen doon defal émission Asmin Sport ñu ko doon defee fii ci stade euh, Mbao ci diggante avenir de Dakar ak euh, ñaari tali mu nekkoon nag match a que ci commencement bi gis nañ supporteru ñaari tali wax billet yi deux mille lay jar te billet yi ay mille francs ak cinq cent la doon jar waaw ñoom tamit ñu koy métti euh, méttitlu ba wax ci wax yoo xam ne sax xam naa ni du teggin sax pour ñu koy génne ak di ko wax waaye tamit déglu naa leen ba ñu def seen cri de cœur tamit dem naa ci ñaari parti yëpp dem ci président avenir de Dakar tamit moom it mu jox version kon nag loolu rek loolu dama koy bàyyi ak yéen nga xam ne tamit yéenay seetaan rek ngeen am ci jàngat a koy defal seen moo ñu war maanaam di def loo xam ne sunu football pour mu jëm ci kanam loolu rek laay dox muy asma mun di leen ko wax waa di wax ni rek dama leen di jox dig daje rek ci beneen journée ci national bi incha allah jërëjëf